Baye Séna Thioune ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel ci bés. jërëjëf buur maa ngi leen di siyaare tey nuyu waa Dakar ak yëpp quoi. tey ñu fekk la sa kër xarit Lat Diop euh, liaison bi nga am ak Lat Diop. waaw moom day wax dëgg yàlla day mbokkum taalibe di taalibe Serigne Touba waaye nag am suñu diggante ak moom ngir ànd gu mu yàgg ànd ak Cheikh Béthio liggéey bi nekk koo xam ne ci njabootu sëñ Béthio la bok plus particulièrement nak mu gën ci jaxaso ak sama frère sëñ Sall mi daan tey di bisu magal gi tay sa ñu ne ko nag mënta ñak ñu jaar fi xolé nu mu toogee té ñaanal ko ci sa barabam bi ak sancam bu bes bu wa Serigne Sall ndigal ciun jëfe ndigal suñu borom defal ko ci ndam ba aduna yépp yépp yépp yépp tek sét wa loolu mom limi wone rek moy tanki kanami Serigne Touba moy ndigal bo ci nekké sa suñu da ngay gis ay yokuté te yow loolu bu fekkee ni buur ñëw nga fii ci janatul maxwa ñëwoon fi daaw ñëw fi ren li nga xam ni ki yokku na yokk na ci xel yokk na ci xam-xam yokku na ci taalibe yokk na ci ay xéewal loolu nag mooy lenn li nga xam ni ci ku jëfee ndigal tawfeex yooyu day daal ci sa kaw moo wàcc si sëñ Saal piloté ca màggal gi nii mu ko defee ci organisation bu jub teg ko ci ci ci ni ko sëriñ bi bëggale ci njàngaleem sëriñ Touba ba ñu am ci tawfeex yi ñu si am yëpp. tey bi xel mi dem na ci góor yàlla. tey bés bi xel bi dem na ci liggéey ko Serigne Saliou ba Cheikh Béthio moom Bamba. des waaw loolu moom dëgg la euh, liggéeyu Cheikh Béthio moom màggal gi mënta xew te kenn du ko fàttaliku ndax fi mu ko tegoon ak fi mu ko yóbbu woon waaye sunu xel dal na ndax xam nañ ne moom fu mu ne moog Serigne Saliou fa ne sunu xel nag mënta ñàkk ñu koy xalaat ngir jëmmam ja noonu mu neexee woon ñuy togg ak moom di àndandoog moom màggal gi waaye xam nañ ni rek moom fu mu nekk rek moog Serigne Saliou fa ne te fu Serigne Saliou ne nag moo gën fu mu newul. moo tax sunu xel dal na di ñaan ñu fekkee màggal gi at yu bari te lii mënu jàngal ba ñu mën ko ci màggal gi ñu fas yéene góor góor lu ba at mu jot ñu yokk si na cuun tey boo doon laajte tàkkoon yëpp ak lu mën a xew njaboot bi ñëpp a maase bëgg ko te yàlla tax tey bu Seydina doon lancé benn message de rassembleur ci njabootu cantakoon gépp moo xam ak fu waay mën a bokk appel bi lan lay doon. waaw loolu moom li ma ci lancé message de rassembleur mooy ñëpp rek maase Don Ben te fas yéene jëfee ndigal ndax dañoo nek ci àdduna te aduna bi nu ne yàlla daf ñoo booleeg Serigne Touba am ko fi toogal Serigne Touba di ab xalifaam di Serigne Mountakha moo ñaanal mu yàgg fi tëwër kooku nag lu mu wax ci yoon wii loolu mooy li mën ne def lu dul du mën kon lu digal digal mbokki taalibe cantaakoor yëpp mooy ñu maase àndandoo doon benn ndax jàpp naa ni ñaar ñuy wut yàlla bëgg a tàqali ko kon am ku ca waxul ndax bu fekkee di benn objectif rek la ñu am mooy liggéeyal Serigne Touba jàpp naa ni positionnement waru cee mën a am maa jiitoo kee jiitu li xalifa bi wax ñun ñëpp nañ ci maase ànd def la moo ñuy jariñ te loolu la sëñ Béthio bëgg ndax maa ngi lay fàttali ne sëñ Béthio am na yu mu fi doon def ci jëme ci wàllum cheikh ak yu demee noonu bi ko sëriñ Sidi Maxtaar wax ko da koo jël lépp teg ko ci suuf loolu rek ngir jàngal ñu la wan ñu ne ñu ki fi toogal sëriñ tubaa lu mu leen wax na ngeen ko def jàngale moom nag xëy na damaa yaakaar ne dafa desee am ci ñu mu mokk waaye loolu maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbali ci ñëpp gindi ñëpp ba ñëpp daje ñu àndandoo diggal Serigne Touba. jërëjëf Thioune jërëjëf waay. Building.